moo xew ci jamono loolu barke Cheikh waaw muñ rek ah di yaa mais bi mais ah, muñ rek sax sa jàmm say say bu ne dina am ay dando ah, ak ay coono ay jigéen moom dañ koy yërëm dañ koy woddu dañ koy jaral dama seen loolu sa ah noonu la demee wali bis ni may sa biir gambaar waaw mais cer la rek moom ah dama ànd ak sama waajur yàlla sama waajur dëgg ba léegi euh, ñu ngi koy gis ñun jamono toog waaw loolu na ci ku dégg rek na saako suuf bi xam nga saako suuf la moom dañ la koy yéen bu la gars yi yéen a fay ñëpp dañu arrêté bàyyi la ak moom donc Aliou bienvenue au club. mais keroog bi nga ñëw de li ñu ko dee xanaa lii demoon parce que maa ngi lay gis nga koy kaaj mu mel ne nga ko booy tàngal jabar. non non non c'est pas ça c'est pas ça dama <laughs> dana ñëw ceeb topp ma rek ndànk ndànk ceeb ñëw na ceeb topp ma nag waaw man man waaw père baaxam nuñ ko rek baaxam nuñ ko kii baaxam nuñ ko rek may ma tuuti def ndànk rek Jangan digelar liggéey naa la ko liggéey naa yow ki may Sadidé may Sadidé maar aji naar mi ci noor njër ba tamba mi ci naar moom aji naar mi ci noor njër ko deme mi ci lambaay li liggéey ndey la ak foofu yar dama fi Yeah. Terus apa yang ada lagi? Amar. yow xam nga ne ñun teewul la gisee ñaanal leen ko. yàlla nga gudd fan. ñaanal వాళ్ళు